ko oyof loolu ko yenn waaye it lépp luy ay naalam liggéey bi it daanaka ko yàlla mottali di am ndégte teewaat fii nag tànk yi ñett ñetti fan la ñu nii ñu koy dox ak euh, sëñ Assane waaye ak soxna Ndeye tamit ak ñi fi nekkal ñëpp ci yoon mooy fi toog suñu doyen bi doyen jël. yi ne dajale ak lu bëree bëri bëri ci xew diine yi suñu ñëw am lum ci jur ci loo xam ne mën nañ ko méngaleeg lu bokkul ak moom moo tax tey ñu bi ñu xëyee rek laa leen woo woone leen bari defe naa démb bi ñu mujjee wax ci suba laa leen ne comme demee na noonu te journée bi dina xat ndax kilifa yi dañuy déplacé wu am ci yeneen bërëb bu ñu war a dem nañu bàyyi ba ëllëg ñu ñëw ziyaare ñëw uyu ni ñëpp uyusee waaye dañoo ñëw suñu kër ndax jëmm ji yàlla def na mu am lu ñu boole te Sénégal yëpp xam ko waa kër gi xam ko waa Yoff yëpp xam ko waaye bi dégloo suñu papa jee wax ba noppi xam naa ni du nen ndax euh, bokkoo gi ndekete gën gën naa yaatu loolu ñu ciy sant yàlla euh, léegi daal ku ma wax Sonko nag ci teg laay laay ndax ci laa am naa ci <laughs> kenn ëppalewu ma ci te dinaa ñëw réclamer sama wàll nag <laughs> actionnaire la kon fii du gulet ñu ñëw fi te saa suñ fi ñëw it lañ fi fekk lañ liñ fa naan fekk rek lañ fi fekk wala lu ko raw sax ci dalal gu yaatu ci ay kanam xar kanam yu leer ci waxtaan gu xóot ak ci ay ñaan yu ñuy kon sëñ bi dellu si nañ niñ ko daan defee buñ ñëwee nag ñëwalaale nañ ñëwaale nañ ñu bari ñoo xam ne yàlla dafa def fek dafa def ñu bokk ci li ñuy yëngatu te ñii seen yaram suutante ku mel ni doyen Habib Sy ak euh, déj président Déthié Fall nga xam ne fi mu dañoo tawat ña ca des it nekk ci tukki ku mel ni président Khalifa Sall nga xam ne ma nga ak ku mel ni présidente ay Mbodj mi nga xam ne ma nga France fi mu toll nii ak ñeneen ak ñeneen ci ñu bokkal ñoo xam ne ay ngànt ñoo leen tere ñëw waaye su ma fi ñëwee dafa mel ni ñëwaalal naa leen rek ndax mbir mi mun nañ ko jàppee fardu kifaaya ñu ñëw ci lu màgg li nga xam ne ci événement yu mag yi la fii ci suñu réew muy Sénégal ndax yàlla daf ñoo may lu bëree bari ci Sénégal te xeebuñu ko te muy loo xam ne bokk na ci li tey réew mi boobu ba léegi damay faral wax ni Sénégal buñ ko bàyyi woon nag nitu Zaïre yi dong kon heure bi li xew fu bari ci Afrique xew na fi jaasi génn na wala fetal génn na wala leneen lu demee noonu waaye yàlla daf ñoo may réew mi mu teel a toog nag ci diine diine gi ñu bokk ñun muy diine jullit waaye diine gi ñu dëkkal gaaleel nag yi ñu dëkkaaleel te bi ci gën a fës di diine chrétien yàlla may ñu mu tooge ci diine waaye may ñu it ay magu diine yoo xam ne dañoo teel ay tàggat Sénégal ak sénégalais yi ci jàmm ak tolérance ak mën a cohabiter di dund ensemble kenn kenn ku ne nangul sama moroom li mu doon loolu mu manqué fu bari ci àdduna ba tax gis nañ li mu jur ci musiba moo tax nit ñooñu nga xam ne nit ñu màgg lañu ñu leen di màggal nii leen di màggalee di leen jagleel ay bés waaye bésu at bi yëpp seen bés la daanaka suñ leen jaglelee benn bës màndarga rek lañ ci wut waaye bësu at bi yëpp seen bés la bés yooyu nag di bës yu am solo fii ci presqu'île du cap fii ci dakaar di capitalu senegal liñ ci gën a ràññee mooy bés bi kon day jaadu képp kuy sénégalais bu ko mënee mu ñëw teew si bës bi rawatina nag ñun ñi nga xam ne yàlla natt nañu ñu am lu ñu jiite ci ay nit ci beneen fan kon suñ ñëwee fii dañ fi teewal nit ñooñu ñëpp nga xam ne tey ci mbirum zaahir bi ñuy dox seen yaakaar teg nañ ko ci ñun muy partie bi ma bokk waaye muy sympathisant yi nga xam ne yëpp tey ànd nañoo ak ñun di leen feddali suñu colère it di leen feddali suñu colère ndax yéen ñu ko ji ñëpp xam nañ ni réew mi am na nu mu tëre am na nu muy doxe te léeg-léeg nit dina toll foo xam ne euh, dina bëri ñoo xam ne dinañu am ragal suñu <laughs> ragal ci doxalin ak jëflanteeg moom waaye kër gii de balaa ñu fi ñëw sax won ngeen ñu lu rëy rëy ci ubbeeku ak ci yëg-yëg rawatina bi ñu fi tegee suñu tànk la première fois ak yeneen niñ fi ñëw yëpp ba tey ji kon colère googu ñu ngi koy feddali suñu digganteeg yow di ñaan yàlla mu gën koo dëgëral ñaan yàlla bu ko dara yàq ñaan yàlla yit lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey di ko mbébét ndax li ngeen di liggéey ak li ñuy mbébét ñun lépp benn la mooy luy defar réew mi luy xettali jaam luy oyofal yenn bi ci kenn ku ne ci ñun luy fexe ba Sénégal ñu jëlee ko fi mu ne yóbbu ko fu ko ñëpp di ñëwee ci wàllu àdduna ak ci wàllu baatin ci wàllu koom-koom ci wàllu social waaye ci wàllu diine ak ci wàllu jikko moo tax ñaar yooyu mënuñoo ñàkk di déggoo ak di ànd te mu doon loo xam ne dafa war nekk lu sincère lu doon loo xam ne kenn ku nekk yaakaar nga ni mën ngaa jëfandikoo ka ca des man de jàpp naa ni suñu diggante wala sax am naa yaqin ndax dama koo gis lu sincère la lu dëggu la ndax toll nañ fi ay diggante yoo xam ne ah wax ngeen ci jëf ngeen ci jël ngeen seen téléphone wooñu saa su ne ngi nemmeeku di ñu massaw seen doom ji yónnee ngeen ko plusieurs fois mu ñëw kër ga nemmeeku ñu seet ñu massawuñu kon diggante bu lalu ci dëgg la te ñu ngi ñaan yàlla mu gën koo saxal di ñaan yàlla mu may ñu bés bi ñu teewaat ko lu yàgg yàgg yàgg ay yoon yoon yoon te saa suñ ko teewee rek mu gën a yaatu gën a neex euh, euh, gën a mate liñ ko doye mu doon moment de communion de commémoration muy moment boo xam ne rafet na ci bët ndax ku gis image yi sax sa day sedd waaye muy moment boo xam ne it ci discours yiñ ciy dégg di ma moment yoo xam ne dafa am solo ci réew mi ndax dañuy delloo si xel réew mi ci l'essentiel te lépp tegu ci dëgg ndax discours yi ñu dégg yépp weesuwul dox jàmm jëf jàmm te jàmm li ko gën a yomba maye mooy kenn ku ne may ko sa moroom discours yi ñu dégg yépp weesuwul loolu weesuwul delloo si xelu nit ñi ci ñu gën a cultiver loolu gën koo saxal te xam ni léegi de lañu dégg ñu ne yàlla may nañu pétrole wala gaz wala zircon waaye suñu matière première bi ëpp solo mooy jàmm te fu mu ñàkk rek di nga tal leneen lu dul loola gis nañu réew yoo xam ne amul lu ñu amul ci richesse lu mel ni Zaïre li mu am Sénégal amul un millionième bi sax ci richesse jama euh, euh, or leneen ak leneen waaye jàmm fa ñàkk moo tax loolu amul fa njëriñ ñu gis ko feneen ak feneen kon lu waaye am te amoo jàmm rek dafa mel ni amoo dara waaye jàmm nag lu ñuy dox la lu ñuy saxal la te ñu ko séq yëpp war cee def ay jéego te loolu la ñu dégg ci waxtaan yi moo tax daal ñu ngi leen di ñaan ngeen jottali suñu nuyoo kilifa gu mag gi jottali ko waa kër gi yëpp waxleen leen ni dégg nañu it seen yóbbal te dinañ ci góorgóorlu bu baax a baax ndax yàlla may may nañu ñu am ci cër te it ba bëri ñu ñu dégg di ñu topp. di dalal seen xel ni ñun jàmm rek lañu bëgg kenn mënul génne benn preuve ni ñun mus nañoo jóg dox safaan wa mooy dem dal ci nit wala def naka sudul noonu xanaa ay léeg ñu dal suñu kaw boobu métti ñu ne nag jot na ñu fagaru te gëwma ni loolu waroon ak jàmm waaye nañ ci gën a góorgóorlu dégg nañ seen yóbbal te nangu nañu it seen discours ndax loolu rek la ñuy xaare ci nitu diine yi dañu wax islaam ku wax islaam wax salaam kon ñu ngi leen di gërëm bu baax ci dalal bi di leen dellu ñaanal yàlla yokk seen wér-gu-yaram bàyyi leen suñu kanam lu yàgg di wax ami nit ci ñaan yi di leen ñaanal sutura ak euh, njaboot bu barkel waaye di ñaan yan bi nga xam ne yan nañ leen ko ngeen war a yor kàddu kër gi te du yomb yàlla na ko yàlla yombal ci yéen salaamaaleykum wa rahmatullahi wa